jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak euh, topp bi nga xamante ne rek yéen ñu koy topp ci site internet bi di Net Bi TV li gën a fas ci bopp xabaar yi nag dañu koy dore accident bu doy waar dañu daal di nemmeeku foofa ci diwaan bu Njaama Fall fukki nit ak juróom-benn rek ñàkk ci seen bakkan ñaar fukk ak ñaar ci ay gaañu gaañu métti boobule accident mu ngi daal di dox ci diggante camion ak benn bus mu nekk accident bu doy waar boo xamante ne rek daal dinay am nag ci boobu boobule yoon niki tey ci suba foofa ci Njaama Fall nekk ci commune bu Ndangalma boobule bilan provisoire jamono ji nag fukki nit ak juróom benn rek ñoom ñoo daal di rek ñàkk seen bakkan ñaar fukk ak ñaari yéree ci gaañu gaañu yu métti ci ñaar fukk ak ñaari nag fukki yeeg benn yi ngi ci état bu doy waar boobulee accident nag li ko jur du lenn rek lu dul benn camion moom moo daal di bëkkante ak benn bus boo xamante ne rek dafa daal di yeboon bu ñu sukkandiku rek ci RTS mi jox boobulee xibaar ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy blessé yi daal di nañ leen rawale ci hôpital bu cees ngir nag mun leen a faj ba ci wàllum xibaar nag bu ñu jógee ko foofu dañuy àddu rek wax ci ab plainte bi nga xamante ne daal dinañ koy déposé jagleel ko Pape Malick Ndour général Moussa Fall Antoine Félix Diome niki tey ci altine ji nag yem juróom-ñeenti fan ci weeru septembre ci atum 2024 kii di Pape Abdoulaye Touré bi nekk membre mouvement Sénégal notre priorité daal dinay officialiser rek plainte bi nga xamante ne daal dina koy jébbal ci procureur ginnaaw ay personnalité politiques yi nga xamante ne rek eh, tudd nañ leen ba noppi jagleel leen boobu les plaintes ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekkoon nag ci ancien nguuru Macky Sall nekkoon tamit ancien ministre ku ci mel ni Pape Malick Ndour ca la bokk Antoine Félix Diome général Moussa Fall ak un certain Chef Sow mu nekk nag ay accusation yoo xamante ne rek lam leen di toppee mooy séquestration enlèvement ak li nga xamante ne moom mooy violence physique ba noppi daal di koy toroxal publiquement ànd ci complicité ak ay métital yoo xamante ne ak ay menaces de mort ñoom ñooñu ñëpp ñu ngi leen di toppee nag ab association de malfaiteurs ci ab conférence de presse bi nga xamante ne rek doon na ko amal laata muy déposé boobu les plaintes kii di Abdoulaye Touré daal rek rek anam bi nga xamante ne moom lañ ko doon xoxatale waaye nag daal dinay wax rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo laale ci boobu lee mbir moo xam ñu sori wala ñu jege nag na yoon daal def liggéeyam ma ngay daal yi nga xamante ne doon na na ko waraloon moo di ñànk confiance bi nga xamante ne rek amoon a jébbal boobu lee dossier te mu nekkoon nit koo xamante ne rek ci influence politique rek justice ci direction bi nga xamante ne rek Euh, moom mooy procureur bu yees bi ngir mu assuré bu baax nag boobu les dossiers daal di koy traité mu bañ a am xaj yi ak senn kii di Pape Abdoulaye Touré daal dinay annoncé que ne moom ci jëmee boppam rek dootul defati benn déclaration publique ci mbir mu nu mel waaye nag nañu càmbar li nga xamante ne rek moom mooy dossier ci kanamu tur bi daal mu nekk plainte boo xamante ne rek daal dina koy fësal ginnaaw ay weer yi nga xamante ne rek nit ñi gis nañ gisaat xamante ne rek jot na ko dund ginnaaw bu ñu ko arrêté woon ca juin 2023 ci manifestation yi nga xamante ne rek doon na ci soutenir kii di Ousmane Sonko ginnaaw bu mu génnee prison nag ca février kii di Pape Abdoulaye Touré daal dinay wax rek nga xamante ne rek moo doon na ko dund ca kaso ba ak méttital yi nga xamante ne rek doon na ko dund ba ci nga xamante ne rek dóoroon nañ ko ko ba loxoom bi nag daal di am ay gaañu gaañu yu métti métti mu nekk ay image ak ay vidéo yoo xamante ne rek jotoon nañu ko gis ci réseaux sociaux yi ñuy wane nag anam bi nga xamante ne rek ci la ñu ko doon maltraité ba noppi daal di koy dóor dóor yi métti kii di Pape Abdoulaye Touré daal dinay dénoncé tamit menaces yi ñu ko doon def ak violence yu doy waar yi nga xamante ne rek doon nañ ko ko teg ca jamono ba ñu ko tëjee ak ay dige yi nga xamante ne rek doon nañ ko ko wax nag ne dañuy yàq rek li ci sa tànk mu nekk révélation yi doy waar yoo xamante ne rek jamono ji daal dinay jur eh, coow lu rëy rek ci réew bi di Sénégal rawatina nag ci bitim réew waral rek ñuy woo justice mu daal di def liggéeyam eh, ba noppi rek daal di dakkal nag yenn ñaawteef fi nga xamante ne rek doon nañ ko def manifestant yi jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné ba cloche de notification yi ngir mun a am yeneen xibaar.